بسم الله الرحمن الرحيم انا آه، وين سانتا يالا جولي تي يونت صلى الله عليه وسلم ماغي تدو محمد قريشي ياس دي دوم تي شيخ الاسلام الحاج ابراهيم ياس اكتيلمون اوكيباسيون بي ام جي بيتم ريو موي secteur général ci l'UPCI. UPCI mooy union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique. Et avons créé en 1999 57 pays ci 54 parlements membres yu ci 23 organisations nous euh, ont observateurs Chez chaise bi mu Téhéran Iran donc loolu mooy fonction bi ñu amé ci bitim également député lañ fi ci parlement du Sénégal suis secrétaire élu membre du bureau de l'Assemblée nationale conseil supérieur la fondation bi ñun membre lañ ci euh, nek euh, vice-président la branche bi Sénégal il y a 36 états ci Afrique yo xamné de membre lañ ci fondation boobu ñu ngi ko créé moom itam en 2015 waaw ñu ngi sant yàlla d'abord mi ñu may ñu fekk tey su fekkoon ne dañuy laajte pourquoi ñi génne azaka automatiquement man nga xam ne azaka dañ santaane ñu génne ko pour dimbale ki nga xam ne amul doole ci ci euh, umma islamiya bi ñi am doole dimbale ñi nga xam ne amuñ doole màkka lu tax ñu fay dem di aj ñëpp bokk benn colin wala benn colaay di exercer ay même activité ak action danañ xam ne bëgg nañ ñu wane ne ñun ñëpp président beeg buur beeg badalo bi ci kanam yàlla ñoo ci am weeri koor nag boo ci ñëwee li ci yàlla gën a buggu mooy jàmm bi yaraat bakkanam bi am na benn chef d'état ancien chef d'état pardon ci Afrique dañ toog di waxtaan ma ne ko am na ñaar yu ma bëgg vérifier ci yow dégg naa ne jullit nga woon te nekkatoo jullit muy benn ñaar itam dégg naa ne da ngay oor weeru malgré doo jullit muy ancien président bu Nigéria Obasanjo ak dafa ma invité woon këram mu ne ma bu njëkk bi awso yu bari bëri ñuy wax loolu ne dama nekkoon jullit nekkatuma jullit mais loolu amutoon li am mooy son papa meilleur xaritam sëriñ la sëriñ la woon alors samedi ak dimanche daf ñu daan yóbbu ñuy dem di andu ci daara ji foofu commencé woon naa di jàng alphabétique bu arab bi waaye nag sëriñ bi dafa mënoon a dóore dóor yu métti man ca laa daara ji ñëwatuma alors daara jooju ma nekkoon nag ci la ñu bëri foogoon ne dama nekkoon jullit waaye loolu amutoon weeru koor dama koy or pour trois raisons bu njëkk bi mooy damay or weer wi pour def solidarité ak suma xarit yi nga xam ne ay jullit lañ ñaareel bi mooy damay or weer bi pour suma wér gi yaram ñetteel bi mooy damay or weer bi pour développer suma spirit suma roxo bi alors ma ne ko kon yow yaa ngi yëg ne weeri koor nit mën na ci am wér gi yaram mën na ci am développement spirituel mu ne moom bu wér mu ne boo ooree eh, seize heures de temps ci vingt quatre heures yi mboolem toxique bu nekkoon seeram bi dafay génn eh, sa roxo gi itam dana gën a dund su fekkee ne yaa ngi or moom looloo tax muy muy or difficulté yi ci àddina bi muy corona bi nga xam ne kenn amut sikki na benn jaam yàlla la rek comme ñun yàlla xam nag lu tax mu indil ñu ko parce que yàlla du yónni malaaka mu yar nit malaa malaaka mënta yar nit parce que bu ko nit xoolee eh, jommi bu ko nit xoolee day jinne it mënta yar nit kon yàlla ci ay mbindeefam lay yaree ay nitam eh, corona bi ab jaam la rek ci yàlla xaj na am na lu àddina bi def ba yàlla indi ko pour pour jubbanti leen ndax tuuti na tuuti goo xam ne scientifique yi nee nañ vingt nanomètres noonu la toll vingt nanomètres ci scientifique ñoom ñu ngi wax ne boo daggee benn karaw ci sa karaw gi dugal ko ci ron microscope di ko multiplier di ko multiplier ba deux cent mille fois ci lay door a ci vingt nanomètres donc foofu la ñuy door a mën a gisee virus corona am na différence ak microbe parce que microbe dafay dund dafa am roxo dafa am tànk dafay dox mais corona amul roxo dundut virus bi amul tànk du dox bu jógee fi dem fële nit a fa yóbbu donc gravité moom mooy foofu euh, kon nag yàlla nañu ko yàlla yàlla nañu ci yàlla musal musal ci àddina bi yi muy yàq bari na peut-être am na ñenn ñu ci bénéficié wu mais li muy yàq moo ëppagum ci ci àddina bi surtout couche bu ndaw bi loolu yëpp mën nañ ko dugal ci bilan koor gi ñaanal yàlla li ci metti mu dindil ñu ko li ci baax mu nangul ñu ko waaw bàyyi munoo wax faydaam bi te doo wax kanu munoo wax fayda bi te doo wax Nigéria munoo wax fayda bi te doo wax Abdoulaye Bayero e, wax naa waa kanu yi bi ma fa demee nii ne leen e, Baye su fekkoon ne bi muy tukki ci coobare boppam la woon rek muy dox tànk yoo xam moom moo koy rëddal boppam li ko doon mu em Gambie ak Mauritanie ak Mali moo gënoon a yomb ci moom parce que Mali presque lakk yi ñuy wax Sénégal mu ngi Mali Eh, plat yi ñuy lekk Sénégal yu bëree ngi Mali yëre yi ñuy sol ak yu Mali presque benn la eh, bu fekkoon bàyyi tànn voyage am moom demoon Mali wala mu dem Gambie wala mu demoon Guinée moo gën a woyof mais nag comme ci ndigali boromam bi la looloo ko yóbbu ba Nigéria te liy tegtal ci loolu mooy am nañ lettre fii boo xam ne daf ko bindoon waa Yola benn région la ci gannaaw Maiduguri eh, ne leen danaa fa ñëw ba jox leen dat date bi jot bàyyi demut ñi fàttalikoo ko mu joxaat leen beneen date date boobu jot aussi demut mu jigi dafa bind Malam Tidiane Ousmane ci kanu ne ko dama bëgg nga dem uutuma yoolaa ndax wax naa leen ñaari yoon danaa ñëw te gisuñ ma dara waralu ko nag lu dul ne man du ma jeegu benn xutwa benn pas lu dul ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàggoo naa pour yoonu yoolaa bi waaye ba léegi jotaguma ndigal ci moom moo tax mënu maa dem kon demal nga uutuma ci ñoom pour seen xaatir bañ a bañ a damm kon loolu tegtal la ne déplacement yi mu daan def ci ndigal la ko daan def alors 1938 ci la yàlla def mu dajeeg Abdoulaye Bayoro mi maami buur bi ñëwoon fii dembu eh, ci màkk xista bi yéen ñëpp xam ngeen ko comme dañuy ramasser jarut di ci jaaraat eh, dajanteeg moom foofu kooku jaayanteeg moom eesal ci moom wirdu Tijaan

83 euh, ans du du caaxaan alors biñ dajee foofu nag loolu moo indi woon Baye Nigéria bi mu ñëwee borom xam-xami kanu yëpp parce que Tijaaniya egsiwoon na Nigéria boobu du bàyyi ko fa yóbbu am na ñoo xam ne jëloon nañ wirdu Tijaan Tijaaniya ci ñaari fois la jaar dugg ci Afrique benn bi mashriq al arab yi la jógee euh, côté Égypte ak. Euh, السودان ak yoy ñëw ben bi joge ci gharb afriqiya mi bi joge maru par Cheikh mohammed al Hafiz Shingiti jaar mauritani ci mouloud Fall ba exi fi ci serigne yu mag yi nga xamne ño nek fi mo xam kër Cheikh Omar al Fouti la radiallahu anhu wala kër Hadj abdullah yass wala kër suñu mbokk yele ci Thiès ki jigen jigen yi wala kër Hadj Malick si donc ñooñu seen tijaan yi mu ngi jógee ci xarb Afriqiya gannaaw bu mu duggee Maroc ci Mauritanie bi fa bàyyi ñëwee comme buur kanu dootoon buur nii rek daf daan nekk xaad moo daan nekk xatibul jumaa moo daan nekk aalim mu yëgal ulama yëpp ne leen am na gan gaa yi ñëw fa nuyu si bàyyi biñ ko nuyu se waxtaan ak moom tuuti daal di ñaan buur bi ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu sa gan gi ñi am ak moom jotaay buur bi wax ko baay bàyyi accepté loolu ñi ñëw julli gaye ñëw toog ak bàyyi euh, di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom bañ salaatu ci fajar ñoom ñëpp ñi doon boroom xam-xam ci jamono boobu ñu eesal seen tariqa ci Baay noonu lañ jàppee ci Baay bi fa Cheikh Abdoulaye Bayoro jógee Amir Sanusi bu mag ñëw Baay jiital ko fa Sanusi amoon complot buñ ko defoon ak buuru Sokoto xam mooy parce que ci noor Nigéria yeneen seet yëpp Amir la ñuy wax mais boo demee Sokoto foofu Sultan lañuy wax parce que Sultan bi mooy coiffé mbooleem umara yi alors ñu amoon différence politique ak Sanusi euh, ñi tànnloo ko entre baay ak pouvoir bi mu amee euh, buuru kanu jamais mu def bopp nen bu ngeen seetloo kii sax bu ñëwee mit na sax le protocole bi di di wàññeeku tuuti bu buur bi dox am na kuy jiitu ci kanamam borom kaala gu ñuul gu mag gi yi muy kabeetu noonu mooy suuf si lay wax mu dal te xam ne sang baa ngi daagu ci sa kaw keroog bi sanu si ñëwee jaale si bàyyi génn jëm ci xabru bi waa ji commencé di wax loolu mu ne ko aha wax jooju teral ko suuf soo xam ne bàyyi ci biir yow ñëw nga ci àll bi naan ko bàyyil wax jooju ba jógee donc ñoom seen protocole Medina rek ngay tax ñu xëtt ko doomi Medina rek ñemee ñëw kanu ñu tegal ko photo yi mu toog ci wetu buur bi moom rek ku ko ñemee jox loxo itam ku ko moy da nga koy dànd cinq mètres sukk soo nuyooyee am na kuy taxaw ci wetam ñu ne mooy làmmiñu buur bi kooku moo lay fay moo naan la sang bi dégg na ko fay na la waaye koo gis mu jox loxo rek euh, fii la bokk euh, donc Sanusi biñ ko tànn looyee loolu mu fokk kaalaam gi simmi ko joxe ko ne moom tànn na bàyyi après pour gars yu mbugal ko nag ñu exile ko yóbbu ko ci dëkk bu ñu naan la euh, xaw nu ma koy melalee tey ci jamono bi euh, mu ngi mel ni ci àll siin bi rek koo bugg nattu nekkoon kilifa meeru Kaolack nga xëy yóbbu ko ci benn dëkk kaw ci siin euh, exilé ko foofu te amul droit génn fa ci ni ko neex Sanusi ci condition yooyu lañ ko tegoon eh, benn sëtam ne na dëkk ba léegi ville bu mag la ndax barke Sanusi biñ fa indi woon ak waxi baay mu ne ma guddi gi njëkk paase foofu ak Amir Sanusi taalibe yi dañoo lal benn dara ku nekk di indi li nga am di teg pour ñu dajaleel ko lum lu muy dundee parce que compte mi bloqué nañ ko li mu amoon ci àll ñoom Sardone na saisir nañ ko mu ne fi ñu toog noonu di dajale loolu ci la sànni awalu egg si indi lettre bi bàyyi bàyyi na def na sanu si muy xalifaam képp ku ma bëgg seet si Kaolack boo amee ci moom gis nga ma ku ko teral mën nga teral ku ko gërëmloo mën nga gërëmloo ku ko merloo mën nga merloo alors loolu yëkkatiku bu ajjuma jotaan kanu yëpp dañuy tëj seen zaawiya yi départ dem si kër ajjuma oto yi dañ daan ma téeméeri oto ak nangam ci yoon bi alors condition yooyu ci la sanu si nekkoon parce que bàyyi du nangu kóllëre gi eew digganteem ak Abdoulaye Bayoro eew ko digganteem ak sanu si am ay nit yoo xam ne dañ tooñ seen si ba pare bugg ko toroxal baay du nangu lool ah Baye def ko xalifa coow loolu jeex pouvoir Nigéria bi yëpp ñemeetuñ ko parce que xam nañ li li ci Baye lan la mu dund ci loolu ba jógee fi eh, xilaafa Issa yow eh, li ko indi xekma boo xam ne Alaaji Abdoulaye yàlla may na ko

ñoom ñoo gisee woon ak moom ne dañ ko bëgg a def xalifa ci Nigeria ñu bind lettre jox ko ko pour gérer cette situation parce que entre Maroc Nigeria da ngay jël visa bu lu facile peut-être bu amee kuñ teg xalifa fa buggee ñëw facilité surtout bu borom barke bu ni alors ci ñoom ci loolu lañ bind nommé xalifa Isaaxa Rabew def ko xalifa Cheikh Tidiane alors Alaaji Abdoulaye comme amoon na xikma mu oo ay rakam ne leen comme waa Maroc def nañ lii te diisoowu ñoog ñun suñ ko confirmé wut taalibe yi danañ divisé wu parce que dana am ñu gëm lii dana am ñoo xam ne dañ naan ñoom Kaolack la ñuy déglu te loolu mën na indi division ci biir taalibe yi moom mu bind lettre Isaaxa confirmé loolu nga xam ne doomi Cheikh Tidiane yi defoon nañ ko xikma boobu moo indi xilaafa googu donc ñaari xilaafa moo amagu moom ci Nigeria bu démb bi mooy ñetteel bi bu njëkk bi sanu si la woon li ko indi woon wax naa ko dañ ko bëggoon toroxal bàyyi bañ def ko xalifaam bii ay doomi Cheikh Tidiane ci Fass wala ay sëtam ñoo proposé Issa Rabiou def ko xalifa Alaaji Abdoulaye confirmé ko pour bañ mbooloo mi tasaaroo wala divisé wu ah bi fi Isaaxa jógee ba léegi nag taalibe yaa ngi doon seet ku ko war a remplacer euh, gàmmu Nigéria gi passé xaw xaw nañ ko fa junj Euh, man fekkul ma foon parce que boobu dama amoon mission Tunisie euh, bi sëñ bi ñëwee nag ne mën naa dem xool consulter nit ñi situation yi ñoom nuñ gisee mbir moom balaa jël décision moom bëgg na xam opinion bi lan mooy seen xalaat euh, yàlla def na def nañ fa presque plus de 15 jours consulter nañ famille yu mag yi nga xam ne ñu recevoir woon bàyyi bi mu fa ñëwee gis nañ politiciens yi gis nañ euh, euh, professeurs yi gis nañ couche yëpp toog nañoo ñoom laaj leen ñoom luñ xalaat ci lii parce que sëriñ bi nee na balaa jël décision bëggu na xam xalaatu nit ñi ci mbir mii lan la euh, ba yàlla def na démb nag barke alquran sëriñ bi décidé na ko moom mu nekk xalifa ci ci Nigéria euh, xaqiqatan mat na ko parce que benn dafay permettre ñu delloowaat mbir mi ci cosaan parce que xilaafa gi ci kër Abdoulaye Bayoro la nekkoon ci kër Sanusi la nekkoon kii maamam lañ ko tuddee moo tax ñu naan ko Sanusi the second mooy Sanusi le deux Sanusi bu njëkk bi mooy maamam Eh, delluwaat mbir mi na ko bàyyi tërale woon yaakaar naa dafay dëppoo ci bëgg-bëgg bàyyi parce que comme bàyyi moo defoon sanu si muy xalifa eh, bu yàlla maye tawfiq Cheikh yi mu toog ci place yu bàyyi moom itam tànn sëti defaat ko muy xalifa kon moom it non seulement mi ngi toog ci place yu bàyyi mais def na li bàyyi defoon eh, loolu it dafa am waaw loolu maa ngi ci ñëw sax dama merci beaucoup dama ci accès gu toon parce que moom bi ñuy consulter nit ñi ci Nigéria moom en tant que nit parce que aw si yëpp bi ma leen dajalee ñuy waxtaan dama ne leen nag ñaari baati arab bu leen ko jaawale tarshih ak tansib ci arab bokkuñ tarchih mooy proposition tansib mooy nomination ma ne ko yéen munu leen a tansib yéen gi yëpp munu leen tànn xalifa bàyyi fii parce que kële ci Medina mooy ut ku ko utu fii yéen munu leen ko ko tànnal man ngeen nag proposer pour ngeen bañ a juum naan ñun tànn nañ ci ah amu leen leen droit boobu dama bañ ñun ñëpp ñu juum tarchih ngeen man mais munu leen tansib tansib kële moo ko man bi ñu leen di consulter ñoom ñëpp it nañ ko moom en tant que membre ci famille Sanofi membre ci famille Abdoulaye Bayoro ci la wax wax bi seen collègue bi di wax moom laa doon jeexale bunt bi ne ma ñun ñi ngi sant yàlla di gërëm Baye di gërëm famem ci ni ngeen ñi téye parce que bu Baye téyewutoon suñ maam ci lettre boobu kon mbir yi demee na neneen parce que complot ci lañ ko fa jëlee woon alors bàyyi indi lettre boobu renforcer ko jox ko loo xam ne bi suma maam gaañoo muy Sanusi mu ne am nañu proposé woon kenn ci seen famille bi ne ko na laaj xilaafa gi ñu koy wax Amir Dan Iya Dan Iya doon na goranteeg bàyyi dencoon na Mbadja Ndiaye mag yi Abdou Malik mais jotuñoo am doom biñ ko ko waxee mu ne leen ah ñun ay taalibe lañ te mbir mii ña nekk Medina ñooy am confiance ci nit def ko ko du nit a koy laaj ñun nañ toog déglu rek bu fekkee ne suñ comme seen confiance yi bàyyi ci suñ bàyyi mu ngi ci ñoom ah bu ñu ko joxee ñu continuer li suñ bàyyi doon def suñ defee leneen itam ñun ay taalibe lañ mu ne loolu la leen dan iñaa bi sanu si gaañoo am ñu koy proposé ne ko comme yaa mag fi laajal kii bi mu ne leen ah ba yàlla def loolu mu wax ci isaaxa am eh, isaaxa nekk xalifa sanusi bi ñuy waxtaan moom itam mu ne man sama maam maa ko gën a niru ci njaboot gi

waaye ñoom duñ ko laaj munoo man itam du ma gën sama baay loolu laay wax dama judd pour liggéeyal mbir mi buñ ma ko joxee danaa ci def li ma xam ak li ma man suñ ma ko jox it moo xam ne loolu la yàlla dogal ñu continuer suñ diggante ak famille Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne mënatuñ leen a fay ñun alors loolu ma ñëwee bind naa rapport jox ko jox ko sëriñ bi après nag moom consulté ne yeneen ay nit ci la jël décision bi nga xam ne jël na ko eh, ñi yaakaar ne nag mën na ko parce que koo xam ne dirigé nga banque centrale bu Nigéria presque huit ans ni muy waxee anglais noonu lay waxee français noonu lay waxee espagnol ak arab eh, pays bi soxla na loolu parce que pays bi lim soxla fi mu nekk nii am na beneen Cheikh Ibrahim bu nit ñi war génne bi ma demee Mauritanie dama leen am na ñaari Cheikh Ibrahim yéen benn bi ngeen xam Cheikh Ibrahim waliyu Cheikh Ibrahim xutbu Cheikh Ibrahim xawsu Cheikh Ibrahim xutbu euh, zaman Cheikh Ibrahim et cetera alqaab yooyu yëpp boobu xam ngeen ko Cheikh Ibrahim bi jël ku bon def ko muy nit ku baax bi jël sagari nit def ko muy sang boobu xam ngeen ko mais Cheikh Ibrahima ak àddina moom dese ngeen ko xam parce que boobu moom euh, xaj na cëriñ gi ngeen nuuxu moo tax munu leen ko xam fekk dama dem seeti leen ci période élection den dama leen bu wax benn stratégie ngeen def ko man xam naa ne yéen du ngeen politicien du ngeen politique mais ut leen budget ngeen dajale mboolem taalibe bàyyi ci biir Mauritanie ñu nekk Rosso ñu nekk ci àll bi ñu nekk ci di bu ñu nekk Atar ñu nekk Tijigne ñu nekk fu ñu mën a nekk ñu indi leen Nouakchott ngeen def xadaratu jumaa ci benn stade fii ak taalibe jigéen ñi toog nii góor ñi toog nii benn discours politique du fa am benn invité politicien du fa am xanaa koo xam ne taalibe la ko kenn amul xaq dàq ko waaye discours politique du fa am da ngeen di sikkar ajjuma ba ngoon ñu nodd timis julli nit ñi tasaaroo kaar yóbbu nit ñi ngeen dem seen kër yi toog politiciens yi ñoo leen di fekk si fi ngeen toog ngeen wax leen eh, conditions yi ngeen bëgg pour ànd ak ñoom waaye ma gis ne wax ji pour dégg ko soxla na eh, cinq cent kilomètres yoo xam ne <laughs> ma réservé at suma avion ñibbisi waaye gis nga résultat bi gouvernement bi formé wu amul ministre taalibe Baye amu ci kenn ko amoon muy taalibe Cheikh Abdoulaye bi nekkoon ministre de la santé yaakaar naa jógee na fa eh, bàyyi àddina boobu ñun moom lañ xoolagut ma leen 1937 archive nationale bu Sénégal ñu ngi am commission de reboisement bu amoon ci Sénégal année boobu bàyyi membre la ci parce que moo woonoon tubaab yi ci jamono boobu garab yoo xam ne boo leen jëmbatee day xëcc taw day indi taw ne garab yi non seulement dana indi taw te ñoom expérimenté nañ ko gis ko d'ailleurs Ali Aydar mu ngi jéem a jëmbataat garab yooyu recensé na leen ne leen non seulement bu ngeen ko jëmbatee day indi taw mais day garder ndox mi ci suuf si ndox mi buñ ko garder ci suuf si mooy sécheresse du am parce suuf saa ngi tooy ci kon baay boobu boo ko xamee war nga mën a def itte nag ci addina bi ma leen dafa jot nag ngeen génn ci nekk ay faiseur de roi di créer ay buur rek te du ngeen ci am chauffeur sax du ngeen ko ci am loolu yi jot na ngeen xool ko alors kii yaakaar naa bu fekkee ne dimbale nañ ko mu jël xilaafa gi peut-être ci liñ yaakaar ci moom ci ni mu organisé woo dana war a mën a dimbale Nigéria parce que cent et quelques millions peut li fa bàyyi di am dana en nekk entre soixante ak cinquante cinq chiffre bu euh, minimum buñ mën a wax parce que suñ yoon bu mujj bi ak sëñ Mahi 2017 defe na président Bukhari ne woon na taalibe yi ñu ngi ci quarante deux pour cent te loolu bu ko état waxee mooy taux bi ëpp na loolu mais moom it day wax li nga xam ne mooy lu mën a te nga xam ne kenn du ko wax ne ko nii laa am parce que moom wax na la ne la yow dèjà nii nga am euh, ñoom chiffre bu ñu am na leneen lu nekk ci kaw euh, kii yàlla na ko yàlla dimbale bu organiser Nigéria yàlla yàlla dimbale ñu mën a organiser yeneen taalibe yi amul réew moo xam ne tey taalibe bàyyi doowuñ fa majorité wala bokkuñ ci majorité bi waaye bañ guñ bañ politique wala ñàkk xam wala daw moo tax munuñ ci am dara man dem naa deux fois visite en tant que député ci parlement bu Nigéria xam ne six cent et quelques députés entre ñaari chambre yi ñaari taalibe laa fa gis loolu c'est pas normal sur trente six states ci Nigéria presque ñaari state nga mën wax ne gouverneur yi taalibe lañ yooyu nag yaakaar nañ ne avec démarche ak stratégie relation Amir Sanoussi bi mën na indi changement changement boobu bu amee rek dana wàll Ghana dana wàll dana wàllu ñi ci des danañu wàllu ñun sax nga xam ne ñun itam euh, presque ee nañ nit ñi ba tëddaat sangoo mbaaj di nelaw voilà kon loolu mooy bilan euh, buur bu bees bi euh, yàlla na ko yàlla jàppale di ndokkeel itam sëñ Mahi parce que lii xam naa ne defu ko ci bakkan parce que bu doon ci bakkan la mën na demee neneen euh, du ñàkk wax na ceeg baayam comme ñu ndaw ñi ñooy giseeg baay rawati moom xam naa ne lépp lu mu def rek mooy mooy ne loolu la baay bëgg voilà waaw dañuy santaat yàlla rek parce bàyyi yàlla alquran la ñaan yàlla yàlla jox na ko ko jox na ko ko comme karaama jox na ko ko comme lumière bu koy niital muy dox jox na ko ko comme investissement moo tax toujours teranga yi koy gënal moom mooy boo xam ne ci alquran lay jógee kon euh, bu ko yàlla mayee ñu def concours alxuraan ñaari yoon xale bu ndaw bu dëkk fii euh, jël ko ci biti ak ci biir loolu sant yàlla la euh, fondation Mohamed VI man maay premier vice président bu branche bu Dakar bi wala section bu Dakar bi waaye bourse yi ñuy may Maroc yi ñuy may Sénégal muy cent quarante bourse pour former leen ñi nekk ay imam nga xam ne chaque dix ans danañ former mille quatre cent imam yoo xam ne formé nañ leen ci xataaba formé nañ leen ci document formé nañ leen ci hadis yu wér ak yu parce que yooyu yëpp archive ngi foofu euh, contrat boobu biñ koy signé utu Sénégal yi yëpp muy xalifa yi fi nekk man maa ko signé ci turu Sénégal yëpp moo tax keroog bii suñu étudiants yi amee problème foofu ministre bi dafa moo woo ne ma mënoo ñàkk ñëw guddi gi ñuy rob Cheikh Amarem euh, man jullee gi laa fekkee mais rob bi dama départ pour dàkkee avion pour dem Maroc ba yàlla def ñi laaj ñi ñun ne nañ leen yónnee kër gu nekk ci cinq kër yi muy kër Cheikh Omar di kër Baye di Tiwaawoon di Njaasaan di e, Touba nañ leen yónnee koo xam ne dañ koy former parce que façon yi ñuy enregistré léegi technologie bi dafa dafa avancer ñoom léeg-léeg ñi bugg a def conférence yoo xam ne tey buñ ko buggoon def ak Maroc ci këri diine yi kër gu nekk jox nañ la loge matériel boobu mën nañ installé suñ ños fii ci Medina sëñ Mahi toog ñu installé ko Touba sëñ Muntaxa toog ñu installé ko Tiwaawan xalifa bi toog kër Cheikh Omar noonu et cetera Maroc di wax ak ñoom directement xam ne du ci jar kenn def déplacement passe di dem Maroc eh, am nañ câble bu leen relayer ñoom ñëpp nga xam ne mën nañ def conférence eh, ci seen biir à travers matériel yooyu bi ñu ko yàlla defee nag Omar mii la désigné woon moom mu dem ci turu xadra Cheikh Ibrahim def nañ fa ay fan ñu formé leen jox nañ leen seen diplôme ñu ñëw matériel bi aussi ànd naa ak moom ba ci sëñ Maax yi ñu ne ko matériel baa ngi nii il faut ñu ut fuñ ko denc nag nga xam ne ëllëg buñ noon buur bi bugg naa wax ak juróomi kër diine yi wala xalifa yi euh, matériel boobu la ñuy installé Touba installé ñu la installé rek mu jeex ñoom i neen ñu wax ci seen biir bu la ñu def ko huis clos loo xam ne discussion la boo xam kenn du ko seetaan xanaa ñoom ñu pare euh, génne enregistrement bi su la neexee ñu def ko live ku connecté rek dugg seetaan alors moom mii la ñu ebaloon ci seen tur yéen ñëpp itam Euh, jox nañ ko diplôme bi wax nañ ko sëñ Mahi euh, matériel bi mu ngi fii euh, bu leneen ubbeekoo itam ñu seet duñ jàppalante ak yéen ñëpp parce que média wu Cheikh Ibrahim war na passé média bu nekk ci quartier bi xam nga ñun dañuy juum sax léeg-léeg même journaliste yi la ville sainte de Médina Baye xamuñ ne Médina du ville benn quartier la <laughs> mais ville sainte de Médina ngay dégg euh, peut-être euh, aine bi wala gëdd tur bi moo ko yóbbu foofu mais Médina ci quarante quatre quartiers yi ci la bokk euh, donc loolu moo aju ci kii bi fondation bi 2015 lañ ko créé woon par roi Mohammed cinq Mohammed six pardon français yi yónnee nañ fa yónnee nañ fa ay doom yuñ formé gabonais actuellement y trent trente six pays ci Afrique yoo xam ne année bu jot kenn ku ne da nga yóbbu benn group ñu former leen pendant deux ans deux ans yi ñoo leen di loger ñoo leen di nourrir ñoo leen di faj bu école tëjee ñoo leen di jox billet ñu ñëw vacances yi eh, yaakaar naa ñun ñoo ci ëpp intérêt ndax képp ku génnee foofu boo taxawoon ci digg New York di waade police New York bi dinañ xam na yow mi bokkoo ci terroriste yi parce que ñoom xam nañ école boobu union européenne xam nañ ko euh, taalibe yi nekk Angleterre waxoon naa leen ñu bind demande jox ma ko déposé ko ci ambassade bu Maroc ci Londres li ci jox ñu ko ñi topp ko euh, képp ku soxla formation bi taalibe bàyyi ci raw parce que am na ñoo xam ne duñ génn Sénégal gi mais comme ñun ñu ngi dem fu nekk ku ci am diplôme boobu yaakaar naa ne boo génnee ci bitim réew doo am benn problème ak police depuis deux mille quinze institut boobu mu ngi fonctionné góor ak jigéen a ngi fa nag mais Sénégal moom góor rek lay yónnee euh, mais am na réew yu yónnee ay jigéen foofu euh, Gabon Côte d'Ivoire Mali léeg-léeg ñu yónnee jigéen. mais Sénégal moom ba léegi gisagu jigéen bu bokk ci formation bi xaj na am na mais man euh, tegaguma ko bët kon loolu mooy formation boobu seen mbokk Omar mi demoon. Baye liban yooyu ñëwoon fi Kaolack boobu ñun ay xale lañ kër euh, fii fuur bi nekk nii jàkkaarloog école Médina bi euh, boobu Saliou Garba moo ko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 ñu def benn réduction boo xam xaw ma ñaata pour cent ne ma ñun suñ bàyyi yi fi njëkk ñëw yëpp nekkoon commerçant bàyyi leen joxoon capital ñi bugg a jàng moo leen dimbale ñi ñi jàng eh, ñi bugg a dem bitim réew mu dimbale leen ñi dem alors euh, mu ne ñun daan nañ ñëw Kaolack ñoom ñëpp dañoo bàyyi fii nag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 mën naa yàq itam comme yéen la ci yàlla def nag ci turu Medina il faut ngeen di toog di waxtaan di analyser euh, bala ñuy dem ci barab barab bi nu ñuy demee bu ñu demee lu ñuy def lu ñuy wax nu ñuy positionné woo euh, suñ sëriñ si nga xam ne ñoom it dañ ñëw dóor micro bi ne allo allo mu takk rek ñu wax ñoom it war nañ leen a guider tuuti nu ñuy waxee kon yàlla na leen ci yàlla dimbale yàlla na yàlla gën taxaw pay bi eh, yàlla def leen ay mag eh, li leen fi indi itam indi fi seen i baay indi fi seen maam eh, yàlla na leen yàlla may lu ko ëpp ci Ibrahim ci barke yonant bi ci barke Cheikh Ahmad Tidiane ci barke Cheikh Ibrahim allahuma salli Muhammad